L'air du TV, la lumière du Coran et de la Sunna. Abonnez-vous. Mok, al ghuraba dañuy tumuranke ba ci seen melokaan góorgóorlul ba ni ngay soloo yow góor gi na dëppoog bi jamono bu ba nga bàyyi manhaju rasul fi xayaatik balaa ngay sol yére xooloon nu ko yonent bi doon sole xatta jigéen waxu nit ñi coow yi bu mu la yóbbu mukk mukk mukk nga dugg ci ñu dugal la ci bàkkaar te jigéen ñu bari mën nañoo dund sunna waaye keroog buñ leen di maye dañuy dérapé sœurs yi ñëw bàjjen yi ñëw ah yow benn bis la di garaawul mën ngaa sol nii rek bu paasee nga delluwaat sa jilbaab nax la yóbbu la salon coiffure ñu pentiir la kuru kuru la kararar la ba nga mel ne ne nga ñëw ni ñu mel ni ñoom loolu lañu bëggoon gis nga ëllëg boo nee macha allah yàlla ne nee nañ muruñu ne ah sa ceet nag noo defoon moo tax yow miy dund sunna amal fulla ah, amal fulla buñ la bëggee suñu solal leen ne leen du am maa bañ benn xale bu jigéen loolu dal na ko mu mel ni da ngay xam ne loolu mayu yàlla la yaay jeeg famille bi ñu ngi ko topp dix heures ba deux heures pour na changer yére mu ne leen duma ma dindi sama jilbaab ñu ne ko kon yére yu seer yi nga ñaw du feeñ mu ne leen amul benn problème yaay ji mere ko tàkkusaan bi ñu toogee di joxalante ñu woo ko mu ñëw toog ñuy joxalante tàkkusaan jot mu bàyyi leen fa dem di julli première rukoom sujootam ci la faatu premier rukoom ci la faat léegi tëgg ya fecc na mi ngi mu wëlbatiku soppi ku nekk dëj ay diw waxoon na ko de diw de wàll yu la looloo ci des kon yow miy dund diina yow jigéen bañal